mbokk bi simile yéen ci xibaar yi ci Tawhid TV ñu dikk ak yéen lu ci gën a fës bokk na ci fukkeelu plan d'action bi nga xamante ne ñu di liggéey ci gox-goxaan yi ak ànd gësam ñoo ngi ko amal ñeenti fanu grève tàmbale ko ni ki talaata gi bokk na ci lu ñuy laaj wàllum xiim ak 20 milliards yi nga xamante ne yoral nañ leen ko ci wàllum couverture maladie universelle nee nañu nag ni ki fukki fan ak juróom benn daañu amal ab doxu ñaxtu fële ca Kaffrine ngir gouvernement bi eh, daal di leen jox eh, la ñuy laaj inauguration muy ubbiteeg li nga xamante ne mooy complexe eh, Seexul Ahmadul Xadim fële ca Touba ni ki talaata gi ci réew mi mag yi sàll sax demoon fa daal di yëkkati ay kàddu ni rek lépp lu nga xamante ne ci wàllum fonctionnement ngir nag boobule complexe gën a dox gouvernement bi dinañ ci def kémtulaay kattanam mbirum nag jaay li nga xamante ne moom mooy lu mel ni siddem sump ak yindi yi men ay ndaw nag daal di ci dugg bu baax a baax ngir daal di mën a euh, faj seeni i aajo donte sax jafe na waaye nag ne nañu euh, dóor waar rek mooy tax lépp lu nga xamante ne bëgg nañ ko ñu mën ko am euh, ca noonee ñiy woo njiitu réew mi Macky Sall mu gën leen dimbali ca la ñuy yëngu ci gàttal sax nañu dikkaat itam ci yëngu-yëngu bi nga xamante ne suuf si am na ko fële ca turki ak ca Syrie daanaka lu ëpp juróomi junni doomi aadama ñàkkoon ci seeni bàkkan mbokk yi bisimila yéen ci xibaar yi ñoo ngi leen di dalal ci Tawhid TV tàmbale ko wax rek fukkeelu plan d'action euh, bi nga xamante ne ñii di liggéey ci gox-goxaan yi ak ànd gësam ñoo ngi ko ànd di xeex boobu ba léegi ñoom nag bokk na ca lu ñuy laaj gouvernement bu Sénégal lu jëm ci wàllum 20 euh, milliards di ñaar fukki milliards ci sunu koppar lu jëm ci wàllum couverture maladie universelle waaye tamit euh, lu tolloog ci téeméer ak ñeenti millions ci wàllum prime xamante ni ñoo ngi ko laaj nee nañu nag nañu amal ab doxu ñaxtu niki fukki fan ak juróom-benn fële ca Kaffrine ngir rek gouvernement bi daal di wàccoo ak lu nu mel dañ ciy teewlu ki nga xamante ni moom mooy Mballo Dia Thiam. fukkeelu plan parce que dafa nekk ay kuréelu kuréelu syndicat bu santé action sociale ak kuréelu activité territoriale yi maanaam ànd gësëm plateforme la pour secteur la santé action sociale ak intersyndical mooy ñi liggéey ci collectivité locale yi maanaam mairie ak wax waxaat yi waaw léegi nag euh, li ci am solo mooy fukkeelu plan bi tey la commencé pour euh, ñi nga xam ni ñoo nekk ci gox-goxaat yi collectivité yi dana nekk ñeenti fanu grève tey talaata ba ba ajuma bi di ñëw dañuy grève ñoom ñëpp mais foofu amul urgence amul service minimum parce que ay extrait de naissance la ñuy joxe ay certificat d'inhumé ak euh, yeneen kayit yu mel noonu ak ay légalisation léegi nag euh, SUTSAS déggal ma naan SUTSAS ab liggéeyam dina commencé euh, suba moom tamit grève ñetti fan lay doon àllarba alxames ak ajjuma mais dinañu respecter urgence ak service minimum bi wante nag programme élargi de vaccination dañoo commencé di ko boycotter maanaam dañ koy bàyyi donc léegi nag jumtuwaay yi ñu waroon yëpp dañ koy delloo gouvernement bi maanaam glacière yeeg ñàkkee yëpp dañ ko koy delloo donc loolu day nekk bi si suba bi wante nag le 16 février fukk na juróom-benn ci weeru février bi danañu def benn marché dox ñaxtu national fa lañ koy defee Kaffrine wante nag dinañu xayma nag semaine bi ci topp mais dinañu gréwaat encore alarba bi ci topp alxames ajuma bi ci topp dina collectivité territoriale yooyu yëpp ah li ko wundu nag mooy euh, defoon nañu ay plan ba gouvernement bi yokk augmentation euh, yokk payoor yi ak énam logement wante ba bis bi ñu toll am na ñoo xam ne dañoo nekk si ñun ñu fayuñu leen logement yokkutuñu leen salaire te loolu teguñu ko fenn te collectivité locale yi ñoom it depuis le trente et mais ba nga xam ne ci lañ commencé fayeeku ñëpp fayeeku ñoom fayeeku ñu dara dara dara faye yokkaluñu leen seen payor joxuñu leen indemnité de logement amee leen ay prime Covid ba noppi vingt milliards yi nga xam ne CMU moo ko abel te ñu ngi ciy topp di daw léegi loolu moo waral daal la suñu fukkeelu plan d' action bi nañ danañ ko xayma gouvernement bi deful daal dañ demaat yeneen plan mu nekkoon nag Mballo Dia Thiam doon dellu si uh, ci yi nga xamante ne ñoo ngi ko laaj gouvernement bi uh, ba sax ñu toll ci fukkeelu plan d'action uh, jëmale ko ci ñi ànd ak ànd gësëm ak ñi di liggéey ci gox-goxaan yi beneenu xibaar bokku na ci li nga xamante ne moom mooy inauguration complexe fële ca Touba ñoom nag ñoo ngi ko amal ci fanweeru hectare loolu nag ci xaalis bokk na ci liñ ci génnee rek lu tollook ci fanweeru fanweer ak juróom-ñaari milliards ci suñu koppar loolee tax rek njiitu réew mi Macky Sall daal di rafetlu bu baax a baax euh, liggéey bi ci tamit di ci nag rafetlu euh, taxawaayu xalifa général des Mourides laata sax muy ni rek euh, gouvernement bu Sénégal lépp luñ ci mën a def ngir daal di doxal boobule complex daal ñu ko def ñu teewlu ay kàddu am. complexe Cheikh Ahmadou Mbacké Cheikhul Khadim di université di lycée di collège di institut du Coran muy fi ñuy dalalee tout tànk ci wàllu alxuraan muy liggéey boo xam ni jar na kañ jar na rafetlu liggéey bu ama am solo la lii nga xam ne xëy na gouvernement la waroon tegu kon boo ko yëkkatee def ko sa liggéeyu bopp def ci sa alalu bopp def ci alalu mbokk taalibe faw faaw gouvernement bi feelu la ci yenn mbir yi mooy lépp lu jëm ci yoon yi woote naa léegi laata may ñëw fii ak benn weer dinañ mën defar tali incha allah ci biir ak li ci biti defar assainissement yeggali école de formation professionnelle waaye it waxtaan nañu ak sëñ Ahmadou Badawi ci sa ndigal nan la gouvernement bi di liggéey ak complexe bi ngir ñu jàppale leen ci charge yi ndax université lu diis la te université bu amee ndongo yi fu nekk lañuy jóge ci àdduna bi bu ñu jàpp rek ndongo yi nekk ci biir Touba wala biir Sénégal ndax université fi turam di yegg mooy tax ay réew danañ fi yónnee seeni doom ngir ñu ñëw sàkku fi xam-xam loolu nag dañ ko war a waajal préparer ko ci dëkkuwaay ci lépp donc moo waral ministre de l'enseignement supérieur ne naa ko mu ñëw waxtaan ak yéen ñu xool dëgg-dëgg nan lañuy ñuy accompagner maanaam gunge liggéey bi nga xam ne Sëñ Muntaxa def na ko àdduna bi yëpp teg ci bët ñu nit ñu gunge ko ci wàll woowu mu mel na ni ñu wax euh, ci yeneen mbir mooy rek euh, jaay wàllum sump wala sax siddéem ak yeneen yu ci aaju ndaw yi nag euh, jël ko lool ndax nee nañu rek dañu bëgg mën a faj seeni soxla donte sax loolu lu mu nëbb ci ay baax baax bari lool moo tax ñuy ñaax sénégalais daal di ko utiliser bu baax a baax waaye nag buñ ca paree ñu ngi woo gouvernement bu Sénégal mu def kéemtalaay kàttanam mën leen dimbali bu baax a baax ci seen liggéey boobee ngir ñu gën ci mën gis seen bopp dañ ciy teelu reportage bu Ndeye Fatou Ka Abdoulaye Wade. jamono ji ñu toll nii ndaw yu bëri dañoo xam li nga xamante nii moo di concept bi fi nguur gi indi muy xëyu ndaw yi loolu waral sax li ah, yëngatu ci seen liggéey waaye it di gën a fësal produit yi nga xamante ne ci réew mi lañ koy defaree ñu bëri ci ñoom sax ñu nga yëngu ci njaayum fruit yi nga xamante ne nii day am ay saison fii ci réew mi ñu ko fi béyee wala sax ñu koy jëlijee ca Mali. Euh, sumpu ndaamaraas hmm, maanaam bëri na daal ay façon yoo xamante ne dafa baax ay ay meññeef yu xam ne fii lay fii lay sax Sénégal yu am solo yoo xamante ne hmm, mag ñi xam nañ ko lu mel ni ndiir lu mel ni sump voilà yooyu yëpp ñu koy liggéey fii naag sama boy yi jaay par kilo dañuy jaay par détail des fois ñu jaay en mais détail bi moo gën a bëri daal détail bi lañ ñu gën a xamee bu mekkee ne tàndarma bi la gaar lañ ko jëlee si bambara yi bu nekkee comme si démbeeg yooyu moom syndicat lañ ko jënd ji fu lay jógee waaw Fuuta lay jógee mais syndicat lañ koy wàcce mun ko indi fii. Euh, ndiir bi tam gaar ba lay jógee si bagage malien yi la bokk ay tàndarma ndiir ak tàndarma bu tooy bi foo lay jógee mais bu nekkee sump bi euh, ak siddéem bi. ak gerte bi yooyu noonu moom syndicat lañ koy jëlee moom. jaaykat bii di Mara business moom jàpp nañu liggéey yëpp a yem amul benn bu ci sutu moroomam loolee tax sax muy ñaax nguur gi mu gën a jàppale ndaw yi ba régler définitivement problème mu emploi des jeune jeunes yi kenn ku ci nekk na gëm sa bopp rek kenn ku nekk gëmal sa bopp xam ne sa avenir ëllëg yaa koy liggéeyal sa bopp kenn bañ a xep ndax li gën a bon mooy ñu jàpp sa loxo ne kii da doon sàcc lii wala kii da doon tiriyan yëfu jàmbur kenn ku nekk war a kenn ku ne boo gëmee sa bopp sa avenir xam ne mu ngi sa loxo yaa koy liggéey bul xaar kenn ci loolu bul xaar kenn ku lañ dimbali wala ku la def lii nekkal ci li nga nekk ba ku la ñëw fekk la ci xam ne yow mi yaa ngi ci li nga war a nekk ah état moom la ñuy wax ne mu jàppale jeunes yi parce que jeunes yi xam ñu ngi ci dëkk bi yenn violence yi nga gis nii yenn agresseurs yi yëpp xale yi ndaw yi nekk ci dëkk bi am nañ doole mais liggéeyuñu moo koy waral kon état lu mu leen mën a jàppale waaw moo gën na leen jàppale parce que dëkk moom xale moo ko yor bu ñu liggéeyee rek dëkk bi dina am jàmm. buy tàndarma siddéem gerte kemb wala sax ndaama lépp loo xamante ne ci am dam dafa ami saison rek ndaw yi ñu ngi cay yëngu di ko jaay fépp ci ndakaaru ndaw yi ñoom xeebu ñu benn yoon liggéey bi ñuy def ndax jàpp nañu ni ñu ngi ci am lu luñ ciy suturloo waaye it lu ñuy jàppale seen njaboot loolee tax sax ñuy gën a ñaax nguur gi mu jàppale leen ndax ñoom itam ñu mën a participer ci sukkali koom-koomu réew mi. mu mel ni itam euh, bu ñu jógee ci wàllum reportage bi ni wàllum soccu Dakar waaye bëgg nañ ko lool euh, dañ koy faral di utiliser bu baax a baax mooy itam am na ay ndaw yu bëri yi nga xamante ne euh, dugg nañu ci métier bi ni di activité boo xam ne itam seen bàmba da ci maase lool donte sax jafe-jafe yi am na ndax yokk nañu njëg ya looloo tax rek ñoom ñuy woo li nga xamante ne mooy gouvernement bi itam mu daal leen jàppale ci lu nu mel njëg yi nag am na fukki dërëm këram dem ba ñeent fukk ku ci nekk euh, bi nga soxla rek nga ci am muy soccu guro wala soccu neb-neb reportage Néné Diallo mu ci ànd ak Abdoulaye Wade. marchand ambulant Abdourahmane jaaykatu socc la ci atum 2007 ba tey. prix socc yi ñun daal prix socc lu ñuy jaay ni socc euh, neb-neb yi ak socc wéreg yi ak socc daxaar yi benn fukki dërëm lay jar. mais ay guru yi abat sawda yi ak matukiwel yi am na ñuy jar 100 francs am na ñuy jar 200 voilà muy liggéey bu metti lool moom nag dafay xëy di dox saa ne Liberté 6 ba Colobane ngir mën a jënd produit yi muy jaayaat. xaw na métti nag xaw na métti parce que da yeewu par exemple man rek 4 heures du matin laa yeewu dëkk ma yeewu 4 heures heure boobu duma am oto damay dox Liberté 6 ba Colobane ma jënd foofu socco ma toog Colobane su ma toogee foofu ba commencé jaay ba heures. après moo arrangé ko moo commencé wëru daal. moom eh, mi ngi dikkaat di xamle li waral njëgu socc yi di yokk muy loo xam ni client yi dañ koy joytu saa su ne. dañuy yaakaar ñun ñooy sàcc yokk socc yi jóge ci juróom dem ci fukki dërëm keesa du loolu quoi ñiy jaay ñi indi socc yi fii parce que ñun demuñ ci àll bi dagg dañuy jënd jaayaat ñii indi socc yi ñooy yokk socc yi par exemple avant. mama yu ñu doon jaay socc benn juróom dañu doon ñaw ñu tibbal rek jox la léegi dañuy compte par benn juróom benn juróom après ñun ñu jaayaat benn fukki dërëm socc guru yi dañuy peese avant ñu ñu doon jaayee kilo 2000 2500 mais léegi mu ngi 5000 ba 6000 moo tax. donte ni mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu metti ci liggéeyam teewul Abdourahmane Ba mu ngi si génn bu baax a baax. waaye mi ngi xamle ni bu sañoon nguur gi dina leen teg loxo. dañuy rek dem ba bitim réew gannaaw bi nga xamante ne suuf si moo yëngatu fële ca nag Turquie waaye nag laalaale siri bu baax a baax ay doomu aadama yu ci bëree bëri ñàkkoon ci seen i bakkan daanaka juróomi junni euh, lingi ci bu ñu toll ni ki talaata gi am na ñeneen yi nga xamante ne nag boo moyul nag ñu am ay jafe-jafe lu tolloog ci ñax fukk ak ñetti million euh, ci ay doomu aadama mbir mi dina leen laal waaye nag juróomi millions yi moom daanaka jafe gu tar moo leen ciy xaar ñu teewlu récit bi ni mel. li nga xamante ne mooy ay ndimbal yu bawoo bitim réew tey jii lañu ñu war a tàmbali yegg fële ca Turquie ak ca Syrie foofu nga xamante ne nag suuf si moo fa yëngatu woon ba sax ay doomu aadama yu bëri ñàkkoon ci seen i bakkan ba ñu sukkandikoo ci organisme bi nga xamante ne moom moo yor lépp lu jëm ci wàllum jiyee yi moom nag lu tolloog nee na lu tolloog ci ñetti ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom aadama ñàkk nañu seen bakkan fële ca Turquie ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorité yu siri ñoom itamit nee nañu ci bërëb yi nga xamante ni mbir mi fitna bi foofu la gën a rëye lu tollook daanaka ci junni ak téeméer ak juróom doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan bokk na ci ñi nga xamante ni amee nañ ci ay gaañu gaañu lim gi dem na ba ñetti junni ak juróomi téeméer ak ñeent ak juróom-ñett foofe ca Syrie buñ ko xaymaa rek daanaka lu tollook ci ñaar fukk ak ñetti million ci ay nit wàllum suuf si yëngatu soo dossier dina leen laal organisation mondiale de la santé mu daal di fësal lu nu mel nee nañu nag lu tolloog ci juróomi million moom dinañu nekk ci ay jafe-jafe yu méttee métti ca noonee sax ndimbal yu bawoo fële ca France ak fële ca Qatar ñoom daanaka ki talaata gi tàmm lañu seen liggéey njiital réew bu États-Unis moom nag yëkkati na ay kàddu di Joe Biden nee na lépp lu nga xamante ne ndimbal la lii di seen dëkk dinañ ko def bokk na itam ci dëkk dëkk bi nga xamante ni moom mooy euh, fële euh, ca Chine ñoom nag lu tollook ci lu ëpp ci juróomi million euh, ci dollar la ñu fas yéene rek daal di def ci li nu mel ngir daal di xeetale dëkk bi di Turquie moom nag ki nga xamante ne moom mooy njiital réew mi nee na nag lu tollook ci ñeent fukk ak juróomi dëkk taxaw nañu tem ngir xeetali leen. Euh, ñuy jaale rek ñëpp ñi nga xamante ne nag ñàkk nañu seen i bakkan ci yëngu-yëngu suuf soosee euh, fële ca Syrie waaye tamit euh, ca Turquie ñi nga xamante ni dañuy am ay gaañu gaañu itam yàlla sunu borom dimbali leen ba ñu jóg ci jàmm ci tuuru te personnel bu Tawhid TV yëpp mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen teewlu lii lañ leen di andiloon ci xibaar ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax asalaamualeykum.